salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel ci wasaare làmb cant ak gërëm ñeel na leen ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam di ko sàkku ci yéen fas yéene ñëw nag euh, waxtaan ak yéen ci benn poñ benn poñ boo xam ne axlu làmb yépp la soxal muy arène national ak euh, laaj bi nga xam ne mu ngi sampe ci mboolem journal yi nga xam ne ñu ngi wax ci làmb lu ci mel ni sunu làmb Euh, ak yenn euh, télé débat euh, débat télévisé yi wala sax yenn émission yoo xam ne site internet yi ñu ngi koy def ñu ngi gis am benn genre question buy dellu siwaat souvent mooy arène nationale bi ana kan lañ ko war a dippe jotoon nañ ci sax ci yenn yenn ay sa càkkutéef yoo xam ne gis nañu ko ci ñenn ñi nga xam ne ay niti làmb lañ ku ci mel ni Serif Atkhana Fall nekkoon foofee ca CNG gis nañ ko ci benn lettre écrite bi nga xam ne jébbaloon na ko waa sunu làmb lim ci doon sàkku bokkoon na wala lettre bi mu jébbaloon bokk euh, monsieur le ministre des sports Matar Ba bokkoon na ci li mu ci doon sàkku mooy arène nationale ñu jox ko turu euh, docteur Alioune Sarr mi nga xam ne moom mooy président CNG mu nekk mbir mu rafet nag mbir mu am solo ndax président Alioune lu ne def na ko ci làmb ñaar fukki at ak juróom benn ku ko jiite structure euh, bari na loo fa def donte nag jaam moom mënta matale suñ borom rek moo mën a matale mais am na lu am solo loo xam ne def na ko ci làmb ba yeeyoo tur sat wala leneen ak leneen ci làmb am na aussi ñuy wax yeneen i tur lu ci mel ni sunu papa Fodé Doussouba wala suñu maam Fodé Doussouba ñu ngi koy tudd Euh, di doon sàkku ngir ñu tuddee ko arène nationale boobu gis nañ fi yeneen icône yeneen légende yoo xam ne nii ci làmb la ñu bokk te ku ci nekk tey boo ko joxee turu arène nationale yeyoo na ko aajowoo na ko parce que tey làmb ba mu euh, commencé wala ba ñu ta dalee bëre ci réew mi ba léegi euh, saa su nekk ñuy gis ay nit yoo xam ne ñu marqué seeni empreinte la ñu ci làmb ay mbër yoo xamante ne nii yu liggéey ci làmb la ay mbër yoo xam ne tey làmb bu demee ba toll fi mu toll ba ndaw yi ñépp daw engagé ko c'est parce que am na liggéey bu am solo buñ ci liggéey c'est parce que dem nañ ba jële ko ci ngar mi ak njàmbaar gi mu nekkoon mais dugal ko ci beneen vole boo xamante ni business la nit da ci yóbbu yaayam màkk di ci yóbbu papa màkk di ci tabax ay kër di ci faj ay buumu gàcce donc loolu moom moo waral ku ci nekk tey ci ancien gloire yooyu ba ñi nga xam ne tey ñu ngi ci làmp te nekkuñu ay ancien gloire yeeyoo nañ turu arène nationale boobu mais euh, ma ne ñun mais man. Euh, bokkuma ci ñiy xalaat ne arène nationale nañ ko jagleel tour yooyu wala nañ ko jagleel diw wala nañ ko jagleel diw parce que bu ñu xoolee làmb ji fi mu toll ci ay jafe-jafe yu metti nag ci wàllu koom bu ngeen xoolee fi làmb ji tolloon en 2010 2009 2010 ba 2011 tolloon ci étape boo xamante ne nii ñépp dañ doon rêvé nekk ay mbëru làmb ku ci am doom bu góor sax da nga doon ñaan mu nekk mbëru làmb wala ñu ci ëpp dañ doon ñaan ñu nekk mbëru làmb ndax succès bi nga xam ne làmb amoon na ko mais aussi li mu doon dugal en terme de de de moyen wala li mu doon dugal en terme de euh, ci xaalis loolu bokkoon na ci li tax ñu bëri doon rêvé am rakku mbër wala doomu mbër wala jarbaatu mbër mais guddi yi ñu toll gis nañ làmb nekk ci ay difficulté parce que xaalis bi fi nekkoon ba ñëpp daw songu làmb xaalis boobu nekkatu fi combat yi ni ñu doon toll par saison ba ñëpp daw songu làmb combat yooyu tollatut noonu làmb toll ci situation bu xaw a metti metti ba sponsor yi nga xam ne ñoo doon dugal seen koppar ci làmb retiré wu mu des ay promoteur képp ñu néew doole nag bu ñu nee néew doole parce que tey sponsor yi yóbbu nañ làmb ji ci benn level boo xam ne pour promoteurs yi fekk ko foofu ajaat ko feneen day xaw a jafe day gën di wàcc mais du gën a yéeg te ci loolu nag ñu xalaat ne tey suñu arène nationale bi mën na nekk benn levier pour mën a jële làmb ci situation yi mu toll yóbbu ko ci yeneen situation lu raw sax fa mu tolloon en 2010 fa mu tolloon en 2009 parce que arène bi mën na ko li tax ma ne d'accorduma benn yoon ñuy jël arène national di ko tudde tey suñu maam du suba donte mérito na ko di ko tudde docteur alin Sarr donte mérito na ko di ko tudde suñu papa Manga donte mérito na ko di ko tudde suñu papa Mbaye Guèye donte mérito na ko mais am na leneen loo xamante ne ni tey moom la làmb gën a soxla parce que li ñu bëgg ñun ñépp mooy lu suqali làmb tey bu ñu jëlee référence ci stade yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àdduna bi ñu cité ci rek quelques stades bu ñu xoolee système bi ñu doon doxe ñoom wala système bi ñuy doxe mooy li ñuy wax naming naming en français muy nommage wala mën nañ koo jàppee parrainage mais bokkul ak parrainage ñi nga xam ne jàng nañ sport xam nañ sport bu ñu waxee naming dinañ xam lan mooy naming mais imaginez tey nationale lim ñu mën a dugalal ci xaalis ci koppar bu fekkee ne dañoo adapté euh, euh, format boobu ñuy wax naming tey bu ñu xoolee ci yenn stade yi nga xam ne ni ñu ngi ci biir euh, ci àdduna bi laay wax ñu mën cee cité tey ku ci mel ni stade bi nekk ca Nice di stade Nice nekk ca France muy Allianz Riviera Allianz Riviera mbokk yi tur bi rek bu ngeen ko déggee Allianz dina am lu mu leen jox parce que am na benn compagnie assureur allemande boo xamante moom moo euh, parrainé bile stade dugal ci xaalis bu bëri nag parce que le 23 juillet 2012 moom la ñu gis ñoom ñu pare ne stade bi ci diire 9 ans juróom-ñeenti at dugal lu ci toll ci 1,8 milliard d'euros par an loolu koppar gu baree baree baree bari la bu ñu cité tey stade bu ci mel ni Allianz Arena bu Bayern ministre ñëpp xam nañ Bayern ministre bu Allemagne stade boobu aussi assureur allemand boobu. moom moo ñëw parewa parenewaat stade bi nekk parrain stade bi naming bi mu jël ko donc dugal foofu aussi koppar bu bari parce que gis nañ ko mu participer ci financement projet bi bi ñuy construire stade bi mais tey bu ngeen xoolee stade Arsenal bi Arsenal stadium moom lañ ko doon wax mais Emirates stadium la parce que Emirates ci boppam moom moo parrainé stade boobu donc foofu aussi mu dugal fa xaalis bu baree baree baree bari en 2014. nga gis koppar googu noonu li muy jariñ club boobu noonu di Arsenal tey bu fekkee ne Manchester City la aussi gis nañ seen stade bi Etihad Stadium Etihad ñëpp xam nañ ko benn benn entreprise wala benn compagnie la boo xamante nii mu ngi Émirats Arabes uni gis nañ sax des fois dañuy dégg euh, Etihad Airlines. dañu koy dégg donc mu nekk benn compagnie aérienne boo xamante ni même même même même entreprise bi moom moo ko moom donc foofu da ngeen di gis ne entreprise yi ñu ngi daw di di di jël stade yi di ko parrainer parce que euh, bëgg nañ visibilité parce que bëgg nañ seen tour di figurer ci stade boobu tey boo xoolee stade bu Bolton ñan ñoo ko ne mooy Macron stade euh, Macron euh, kii boobu marque boobu ñuy wax Macron. moom moo parrainé stade bi stade bi Macron Stadium moom la tudd mu nekk stade bu Bolton bu fekkee ne Marseille la aussi gis nañ Orange Vélodrome la ñuy wax donc foofu aussi gis nañ Orange mu ñëw pare ne bi les stade stade Marseille boobu ñu xool en terme de de de de de euh, en en terme de moyen wala en terme de de finance li nga xam ne nii compagnie yooyu ñu ngi koy dugal ci biir stade yi wala ci biir club yi nga xam ne ñoom moom loolu. mais ñun aussi waroon nañ am beneen réflexion bu bokk ak réflexion euh, yooyee club am xalaat bu ñor xomm boo xam ne ni tey ñun suñu entreprise yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk au niveau national que ça soit ay entreprise étrangère yoo xam ne ñu ngi fi di fi liggéey di fi gagné seen seen seen wërsëg wala entreprise locaux yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi dëkk fi juddoo fi di fi gagné seen wërsëg mais ñu dippe leen bi parce que imaginez tey bu fekkoon ne dañoo jël arène nationale par exemple dippe ko ay phase muy ay phase arena alal jooju noonu muy dugal par an ça dépend ministre bi ci naka la ñuy waxtaanee ak ban durée lay nekk. imaginez ñaata lay dugal ci koppar euh, ci keesu euh, arène euh, Dakar kii boobu arène nationale boobu mais loolu xaalis boobu mën na dundal làmb. mën na dundal làmb parce que période bi nga xam ne nee nañ sponsors yi daw nan mais mën nañ cee financer mboolem lu fi nekk tey ay écurie wala ay école de lutte mën nañ leen cee subventionné ay millions yu baree baree bari par at ñaata écurie ak école de lutte lañ ci mën a financer subventionné leen ba ñu mën di dérouler seeni i activité normale wala ñaata promoteur lañ ci mën a accompagner ñu organiser ay journée yu mag wala loolu nguur gi nan la ci mën a accompagner CNG ba CNG ci boppam organiser tournoi bi nga xam ne moom mooy tournoi de rêve bi muy euh, tournoi bi nga xam ne ñëpp a ngi koy revendiquer tournoi bi nga xam ne moom mooy déterminer kan mooy nekk roi des arènes promoteur mënu ko tëgg wala bu koy tëgg it il faut mu am ñu ko accompagner dëgg pour mën a réussir loolu parce que projet bu métti la bu diis la imagine leen tey bu ñu boolee Balla Gaye 2 Modou Lo Eumeu Sène Gris Bordeaux ah Bombardier par exemple ténor yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw Euh, Lac de Guerre numéro 2 et cetera ñu boole tenoor yooyu defal leen tournoi mais loolu alal ju bari nga leen di fay mais xaalis boobu fan la ñu koy jëlee tey bu fekkoon ne ñu ngi xalaat ci naming boobu mën nañ am xaalis boo xam ne dana mën a financer CNG wala mën a mën a mën a mën a mën a financer yenn promoteurs yi accompagner ñenn ñi ba làmb nekkaat fa mu nekkoon tey gis nañ fi à part phase gis nañ fi Elton gis nañ fi Total ah Total Arena. bu fekkoon ne te stade bi dañu koo jagleel total total arena ah wala Auchan arena yooyu ay entreprise la yoo xamante ne ñu ngi ci biir réew mi di fi liggéey di génne suñu koppar mais entreprise yooyu mën nañoo woñ seen loxo ñu doon ay parrain stade bi moo ëpp sens wala moo ëpp opportunité que ñu jël stade bi di ko di tudd diw wala ma sàmba wala ma demba donte loolu lu rafet la parce que kenn nattable wut ne mbir moomoom mbir mu rafet la mais nag nañu xalaataat ci côté naming boobu nga xam ne yenn stade yu baari ci biir réew mi tey moom la ñu adopté ngir mën a am ay ressources mën a am genn koppar goo xam ne nii danañ ko dugal ci seen biir ba mu mën leen a jural lu baree baree baree baree bari tey entreprise locaux yi ñu ngi fi KFC mu ngi fi ah Sedima mu ngi fi donc euh, yooyu ay ay entreprise la yoo xamante ne nii tey mën nañoo jur lu bari mën nañoo indi lu baree baree bari ci biir réew mi ah lu ci mel ni Free Firi Firi Arena yooyu ay entreprise la yoo xamante nii pour ñu accompagner sport bi lu yomb la mais nag day fekk ministre des sports wala gouvernement bi ci boppam jël li nga xam ne am nañ ko ci ay infrastructure te làmb moom ko ñu jël ko ja euh, jébbal leen ko tuddee leen ko pour ñu dugal koppar gu bëri nga xam ne ci diire euh, euh, euh, diire lay doon boo xamante ne nii bu ñu fa àggee bu ñu renouveler xayrun bu ñu renouveler wu ñu jël ko tuddewaat ko keneen parce que business ci la ñu toll te làmb business moom moo koy doxal mais nag rafet na ñu tuddee ko ancien gloire ñu tuddee ko koo xam ne yàgg naa jàpp ci làmb ñu tuddee ko koo xam ne mu ngi béy waaram si làmb mais fi gën a opportun fi nga xam ne nii fa lay gën a dugalee xaalis mooy tey bu ñu utiliser woon naming boobu. def ko sunu stade bi sunu arène nationale bi tudde ko benn entreprise mu ciy verser ay koppar at mu jot bu boobaa danañ ci mën a liggéey lu baree bari ndax làmb soxla na ko sponsor amatut promoteurs yi xaw na noo neew doole parce que ñi leen doon gunge gungeetuñ leen mais aussi mbëri yi bëri nañ licence yi bari nañ te journée yi néew nañ ñi bëree bëriwut te année blanche yi bëri nañ donc ñu ngi invité euh, monsieur le ministre des sports Matar Ba à ce que ñu xalaat ci côté boobu parce que xel du doy Euh, te it jàpp nañu ne dañoo dañoo dañoo am dañoo xalaat rek euh, jàpp ne tey bu ñu ko exposé ci table ji peut-être mën nañ koo def ñu jariñoo ko loolu moom moo waraloon kàddu yi mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ëllëg incha allah danañ fi dellu siwaat ci beneen point mu nekk euh, kan mooy remplacer docteur Alioune Sarr wala docteur Alioune Sarr dana fi nekkaat wala déet loolu danañ ci ñëw mbokk yi indiwaat ci jàngat bu yaatoo yaatoo yaatu ba xam tey ban statut la ñu jàpp ne. nit ki war na koo mën a nekk wala mën naa méngook ak statut boobu pour mën a diriger li nga xam ne moom mooy change cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah ci yeneen i xew-xew làmb jërë ngeen jëf.